ndax ñun euh, seen liggéey mooy jéem a te dañu fi nekk parce que bu ñu ko defee seen liggéey mooy seen liggéey du du parparloo seen liggéey mooy lépp ngeen xam ne loolu la yoon santaane ñu taxaw si.